salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu jëwriñ di nuyu daayira yëpp daayira Touba Milano ak mboolem dawaayir yi aju ci yi wër barab bi yépp ñi fi ñëw ak ñëwut ñëpp waaye nag di beral loxo jànkati xasida nag ci xam ne ci yéen laa bokk. <laughs> di bëgg lool ci njàng mi tegu na ci yoon lool mel na ni bu ko boroom déggoon du ci soppi dara tabarkalla eh, di rafetlu sa kàddu yi lool ci njaayeen day mel ne yow dong sa waxtaan wi doyoon na sëkk waruñ cee teg dara ñu leen booleeg Abdou Karim mi itam nga xam ne léppam laa mhm. maamam la waaye sama jarbaat la hmm. te teel a taxoog man lool moo rakkam ji hmm. ñu gën yoo xam ne dañoo am jom lool hmm. te nangu liggéey gannaaw bañ jàngee ni ñu war a jàng maa ko luqar ci sax ne nga fekk ma fii ba xam nga dañuy ñoom fi xam naa ñu ngi fonk taalibe gi sax waaye teewut dañ cee boole di liggéey ba waaye teewut may leen bàyyi leen seen business bi te fekk ba fii rek. Ah. ndax moom gën a mën a waxtaan ak taalibe yi kon moom li mu wax lépp boo ko seetloo. Mm-hmm. samay wax day duggaat ci biir. day toll mënumaa ñàkk sànni kàddu rek waaye li ma li ko wax loo wax na ko ba wax loo xam ne raw na ni ma ko bëggee woon mm-hmm. te lépp tegu ci xam-xam ak ci taalibe xanaa rek di leen soññ di soññ sama bopp xam ne dana am du kenn amul. Mm-hmm. muy sëñ bi mboolem seekal yi nu romb gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëmm ni sëñ Tuubaa mës sa wàcc ci benn seekal mës sa wàcc ci benn mennum réew loolee mu wax ne Cheikh Abdoul Ahad moom moo ko nettali ca Touba Belal ne dafa am bis sëñ Fallu ne ko dama xëy ci sëriñ bi ne ko tey de dama laa xëy si ngir sant si mu ne ko fadilu ci lan moo damay sant si taalibe yi hmm. taalibe yi ñëw ba dem hmm. ak yii fi ne ak yi ñëw ñëwagut dama leen santale la sa jëmb ji hmm. mu ne ko waaw falilu mat na ko de ndax yéen de yàlla may na leen ëpp leen yeesu leen gi ñu jàpp leen ndax bu ngeen ëppoon da ngeen may jiitu ba ma dem te du ngeen ma gis du ngeen ma xam bu ngeen yéesoo ni da ngeen nag ba ma dem ngeen hmm. door a ñëw du ngeen ma xam bu leen gimeen jàppoon ni da ngeen di taseeg man te du ngeen ma kon nag yéen war ngeen a sant yàlla bu baax xam nga lu tax ngeen war a sant hmm. mu ne ko bëgg naa ko xam Mbàkke mu ne ànd koo xam ne xam na fa mu jëm xam fa mu la jëmee dafa yombul hmm. te man mii kat li ma sama rëddi waaraam yii leere nee def nii loxoom ne ko ni ma sama rëddi waaraam yii leere hmm. hmm. ni la ma leere fa ma jëm ak fa ma leen jëme <laughs> loolu si yëpp daa tafoog nett man samam kon nag day mel ne murid moom dafa ñëw rek xamut li mu am hmm. day mel ne ku judd ci bu ci mbuur nga xam ne ba nga juddu rek di liir lañ la ubbil compte banque fële di la ci versel xaalis nga màgg fekk mu fees dell. kon liggéey liggéey bay xam li nga am. kon dañoo dañoo dañoo dañoo bokk ci xayru xayraatini sëñ bi. li mu ne kulli moom sëñ bi day mojisa yonent bi. sëñ bi bu ko séparé moog yonent bi. dafa bokk ci mojisa yonent bi yi mujj a ñëw. te lu mujj yonent bi gën lépp. moo tax mu ne kulliyati mojisatun te axarat wa xayru xayraatin la day kat du xayrat loolu moo tax. kenn mënta def boppam ab murit hmm. kenn mënta def keneen it ab murit borom murit yi moo fexe ba murit bi di hmm. murit dafa wax ne ca azal hmm. bañ bindee roo yëpp salaam salaam daf ko ne suñ boroom a ngi bëgg a laaj ab laaj waaye maa ngi lay digal fu ma tontoo bu la bu la ca kenn jiitu na nga nanga ca tegu bu may tont rek yow nañ ca topp daal tontu fekk ru yëpp suñu borom da leen bëgg a wax xanaa duma seen borom boobaa dana am ñu ne ah kay yaay suñu borom yaa nu moom dañ koy wax ànd ci ak xol bu sedd ak nangu waaye ñëppay nangu ñëpp a koy defi. Mm-hmm. waaye ñee dañ koo sëñ bañ dañ ko wax ci mm-hmm. dañ ko wax ci ñàkk pexe ñii nag wax ko ngir nangu ci seen xol ak gëm ne looloo am léegi nag ñu njëkk a wax. Mm-hmm. bale joojee alastu bi rabbikum xaaloo bale mhm. yént bi teel naa sa sëñ bi ne ko ci asal laa wax de ah. bu ma nee balee rek yow tegu tegu ci naka ruug yonent bi saa salaam wax balee rek sëñ bi daal ne balee moom it saa salaam geesu ko ñaan boromam ne ko damaa bëgg nga boole ma kii mu liggéeyal ma ci xeet wi hmm. ndax nee na ko nee na booba damaa defoon yonent bi daa defoon damay damay tànn sama xeet damay tànni feneen hmm. ma ne ko tànn mu fenn fii nga tànnoon ba ba tànn sa njaboot gii hmm. sa xeet bi nga xam ne koo ci tànnu tey mënu cee bokk ci laay tànnaat ñi may tànn ñuy sama njaboot tànn joojee ne ku ci bokkutoon mënu cee bokk hmm. kon noonu nun tànneeti tànnee fi tànneef lan xayru xayraat lañ ba yonent bi tànnee njabootam ba noppi ummatu muhammad sëñ bee tànnaat ci ummatu muhammadin al muridiyya ku ci bokkutoon boobu nag mënoo cee bokk kon ku ne ameel nga bor sëñ bi boo xam ne tànn gëm la tànn ca ñooña ba bale la ci mënoo fay sëñ bi <laughs> boo doon fab sa àddina jëpp di ko jox fab sa àddina jëpp di ko liggéey mënoo ko fay mm-hmm. waxuma dara waaye xasida yi ngeen di jàng rek am na ci xasida yoo xam ne ku ko jàng benn yoon rek sëñ bi wàccoon ak yow mënoo fayati sëñ bi mm-hmm. sëriñ Xamsatu mu sëñ ma borom Daaru Muxti mm-hmm. nee na sëñ Chouaïb bu da ko fekk da ko da ko yeboon lool fonk ko bëgg ko wétali ko di ko di yàq tur bi naan naan kamsa kamsa yow xasi ñaari xasida yi xam nga dara jaam fu mu toll la mun nga déedéet man de xamu ko mu ne ko xasida saxaxta li rabal bariyati badan muy safaru bam sasin junnatun ak safaru bam sasin jannatun muy saxaxta li ak safayta li safayta omri mu ne ko xanaa xasida gi xam moo ne koo ko jox hmm. koo ko jox rek bu la liggéey loon juróom-ñaar fukki at yoo xam dalay lay xëyal di la gont wàccoon nag yow toppatoo ko dara toppatoo la dara dara gi ci foofu la toll doomi Sëñ Tuubaa moo ko borom doomi borom dal moom kooku lu du lu ñuy kon ñoo xam ne sëriñ moom lim nu defal lépp hmm. la ca gën a tuuti rek buñ doon dund suñ dund gépp di ko fay mënuñu ko fay ñu war a gën a wëlbatiku nag gën a jaajuwaat gën a gën a góorgóorluwaat gën a laxasaat su ndigg mm-hmm. ngir ni ko Abdul Karim waxe yàq yi dafa bari mm-hmm. te jamono ji seytaane jumtuwaay xarala yi muy xeexe ak yi mu yàqe dafa yomb mm-hmm. bu jëkk xam naa ne Iblis daana sonn tuuti ci yàq nit waaye léegi moom fa mu toog lay toog rek di manipuler internet bi rek di def li muy def loolu nag taalibe bi bu ne da ngay xam ni ni nga ciy mucce mooy temps boobu nga nar a jox kuy wax lu amul njariñ mhm. yow def ko ci xasida yi taam boobu ngay déglu wala ngay xool seen boo xam ne la nga ciy gis day wax ci sëñ bi lu mu ta wax mhm. xam ne mosuñu fay jóg jumtuwaay yee yomb rek waaye mosuñu wax sëñ bi lu baax yow nag fas yéene sa nopp bu mu ko dégg bu leen may ay vie la nga nar a toog di ko déglu mhm. jàng ko maraaxib wala mafaatil bis wala wakaana aqan wala xidma wala leen waaw mu ko <laughs> nit ku ne la muy am ci ay ro ci ay noo noom yëpp da ko war a fexe ba feccali ko ak yiw ba bu mm. ëllëgee buñ ko ko wanee mu bëgg mm. te faw day faatu te balaa faatu ñu won ko lu mu mas def mm. kon nag nga jël sa temps bépp def ko ci internet bi boo nee ba faatu si ñu la ko nga xool sa noo yëpp def ko ci internet bi di déglu lu bon di déglu loo xam ne même boo ko gënuti dana jaxase sa xel loolu murid yëpp dañoo war a maase dëddu ñooñu bañ leen a xool bañ leen a faale nag nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax rawatina boroom kër bu ne mu kàllaf mu ne. ngay feddi li sa njaboot tey waxtaan ak ñoom te sa bët bañ a génn ci ñoom. sam mm. nopp bañ a jóg ñoom ndax yàq yi bari na. Mm-hmm. te fu ne lay jóge yoon wi naka jekk dafa bari noonu. Mm-hmm. waaye nag fi mu ne la raw. Mm-hmm. ndax noon yi dañoo bari jumtuwaay yoo xam ne fa ñuy aw ba yàq nit ki dafay jafe dafay yomb te doo ko yëg sax kon nag fexe ba qu anfusakum wa ahlikum naaran jamono jii la jot sëkk fexe ba rawale sa bopp rawale sa njaboot waxtoom lañ toll sëñ bi neewoon na da ngeen da baag ci jamono joo xam ne na ngeen fa ku ci am diine yi lislaam hmm. ngëm-ngëm pas-pas hmm. na ko denc ci bañ ba ñuy wax roog seen mooy bañ ba mujj ca dégg ci hmm. waaw bañ ba ñuy wax rook seen na ko fa denc waaye ku leen a ŋaal nag bañal mooy li ngay jàpp gisiñ bi ak li ngay gëm gisiñ bi bu ko waxtaanee bu ko kafe bul nangu ko ca wax jëm ci bul nangu ko la ca wax dara yow denc ko te ne mugg ak moom rek te xam ne li nga am kenn amu ko <laughs> ku bëgg na ñëw bokk kook yow ku bëggul nga muñal muñ muñ kook ak muñ léppam loolu rek moo di taalibe di leen soññ ci màggal gi nag di leen màggal gi ni ma ko waxee rek màggal gi day mel ne ren la ci téeméeri at hmm. ndax maa ngi koy leeral barki démb rek sëñ bi daa mel ne 1918 la ko njëkk a def. Hmm. waaye booba moom képp a ko def. ba de hmm. at mu ne da koy def ndax at mu ci ne ba bis bi egsee bis bi mu jóge woon ba yi. Hmm. dana yëg ci boppam loo xam ne bu ñu wutoon téeméeri wàll yu teg leen ko. danañ sonn coono boo xam ne duñ ko attan. ñu fab ko teg ko ko moom. mu di ko dékku te du ko yàqal jaamu yàlla du ko yàqal sikkar du ko yàqal bind ci yonent bi du ko yàqal mm, bàkk boroomam ak màggal ko ak ko ak ko ak la ma war a def lépp ci jaamu yàlla mënu ko def te te mu yëg natt bi na mu ko war a yëgee. ndax lam lam bëgg lam bëgg suñu borom fayee ko ko ëllëg dafa diis diis goo xam ne. moo tax bi mu liggéey bi liggéey bi àgg it taxul ñu bàyyi natt bi di ko teg rek. ba mu jógee gànnaar ba ñëw jolof ba ñëw njaareem ba 1918. ñu ne suba mu tàmbali di ko waajal nag. waaw laxasaayuwaat nag di néeg nag nattu bi. bi mu xëyee nag yëgut dara. salaam salaam ne ko sa borom nee na. Hmm. bis bii liñ la ci daa teg ci nattu doona tut bis booy jële nangu recevoir daal recevoir ay nattu hmm. déedéet léegi da ay ay ay ay cant la waaye du bisub jëli nattu hmm. da koo soppi moo tax safarul xuruj ak safarul xaraaj <laughs> mooy loolu nee na keroon nag la tàmbali nag suñ borom ne ko nag mboolem lu ma waxante woon nag yow nattu naa la seet la wet gu ba nangul naa la li ma wax ak yow lépp. Hmm. léegi nag li ma la ci war a may ci bis bi bis bu excité yi lu toll noonu dama la ko ciy mayal. suñ bi daal tàmbali ci bis boobee nag. Hmm. di sant. cant goo xam ne ci boppam la yem. Hmm. ca kenn booluwu ca kenn digg ma borom. waaye cant ga nag suñ borom di ko fay muy gën a bég di ko fay. 18 19 20 21 ba 22. 22 hmm. nag mu àgg ci nag gis cant gi àgg foo xam ne boppam doyatu ko ci. Hmm. mu ne nag képp koo xam ne sama mbég sa mbéga bis na ki tey dama sant la yàlla ndax sama bopp doyatu ko ci. Hmm. daal di woo suñ Balla Fally. am na taw feex lool bokk na ñu amoon tawfeex yi moom la suñ bi njëkk wax ne ko jëlal lii mu jël lii mu ne ko wàññi ko sëñ bi nag xaalis yi nga xam ne dafa dagan ci moom. sëñ bi lépp lu lépp lu ko jege suñu borom da koo may moo na a moom. Hmm. fi ne loo mën a indi sax xaalis bi bu raxee lu lu daganut xaalis bay wax ak moom. moo tax xalima gi rek la koy laale. Hmm. lu ci bokkut da ko ciy génn ba mu set. léegi hmm. di bari bari daa lu mu sañ laal ak lu mu sañ a ca xool ba lew noonu xalaalan tayiban mu lii lii lii sama borom jox na ma ndigal yóbbu ko ñu jënd ci mburu ak café ak attaay ak suukar mbedd yëpp nañ ko topp jox ñëpp ñu xéwlu. bu fen des muy ñetti téeméeri dërëmi ngurdu booba fukk ak ñett suñ ma fay la génn nag nga xam ne loolu kenn xamul nu mu toll booba ci alal bu ñu ko doon xayma ju bëree bëri la lépp ñu jënd ko lépp rek ñu jënd ko ci bis bi café suukar mburu lu ne rek topp yi wut yu mag di tàngal ay ak ataaya ci mbedd yi di ko taal fu ne rek foo toll rek di xéwlu hmm. ku bëgg ku bëggu dañ la jox <laughs> bis boobee nag boo ko xoolee 1922 la loolu nag ak ren ji 2022 yaakaar naa téeméeraat la. kan nag màggal màggalu exception exception la ci màggal yi moom waaw da ngeen koy beral loxo da ngeen koy beral loxo yéen ñu ne fii ñu ci mën a dem nañ teel a waaj na ngeen xam ne kat am na ñoo xam ne bu ñu leen woon équipe équipe sàngam wala euh, gaañam koy gën a xam coupe du monde wala yooyu yi nga xam ne dañoo fonk football lool ñooy barab sàngam kat dañ fay def coupe fa lañ koy def am na ñoo xam dañuy paas bàyyi li ñuy def buñ ko ko mënul jar na leen sax fa ñuy liggéey ñu ñu lay leen ne tawoon ñu defal leen naa ngir bëgg koo fekke ji ah. toog fa ay fekkee football ba dellusiwaat dellusiwaat hmm. te duñ leen ca fay dañoo neeneel seen jamono bu ëllëgee ab safaan sax la leen cay fay ndax faat nañ fi julli def nañ fi ne ndega am na ñoo xam ne jaral na leen loolu yéen itam màggal na leen jaral lu ngeen man ak lu ngeen Sëñ Tuubaa dane ku ma defal li nga man ma defal la loo mënut ku ma defal loo mënut ma defal la loolu jomb kon kooku man lu néew néew dem Touba ndax sëriñ bi moom ba koy santaane dane fu nekk na ko def na ko def sant li bi sëñ Fall ne ba xam ne situation bi laaj ne ñëpp di ñëw Touba mu yaatal ko ne ñëpp nañ koy defee kon ku ko defee Touba benn benn bal nga sànni jam ñaari rab jëfe ngeen ndigal sëñ bi jéggi ndigal sëñ Fall ñëw Touba ko xam ne am nga ngànt bu wér wér foo ne sëñ Touba nga fa foo ko defee sëñ Touba nangu ko na nga fexe fa nga toog daal ñëpp bég mhm. te xam ne bis bii wuti naag ak yi ci des loolu rek mooy màggal màggal nag luñ la ci mën a wax màggal màggal mm, bernde bernde rek moom daal na wuuteeg bis yi ci des na ñëpp bég te yéene ci bég bégle sëñ Tuubaa mm. sant la ko yàlla loolu rek mooy màggal bu ngeen bu ngeen amee ngant lu wér ba defe ko fii mm. na ngeen xam ne yéen ak ña nekk ci péncum di ko defe yéen a yem képp ndax sëñ Tuubaa ma ngeen ma ngi koy defal. Mm-hmm. mën na leen fekk fii sax dugg seen biir te du ngeen xam ne mu ngi seen biir waaw weesu na foofu. kon nag pas-pas bi rek a ci am sax. da mm-hmm. ngeen góorgóorluwaat bu baax a baax. yeesalaat pas-pas yi yeesalaat pas-pas yi. gone yi gën a góorgóorlu bu baax a baax gone yi nañ gën a góorgóorlu lu baax a baax fonk xasida yi. Mm-hmm. Euh, ab liir bu nanguwut a nàmp meewam ndeyam. ku ko xam ku ne da nga xam ne kii ay fanam bëreetut. lee mu hmm. faatu waaye murit rawatina gone bu fi ne ñukk xasida yi ne ca leneen da hmm. ko wóor ni mbiram hmm. kon nag xasida yi rek dina jàng xasida yi ñuy durus durus ñu naqare baat ne man noppi ñu neex baat di jàng waaye ñàkk jàng xasida moom xaru la ci murit fonk leen xasida yi rek bu ngeen ko fonkee seytaane du mën ci yéen dara wa a yaxsu an zikri rahmaani nuqayyid lahu sheytaanan fa huwa lahu qariinun seytaan li muy bari bari doole kuy jàng xasida rek ko waaw ah, di leen jàng xasida midaadi wa qalaami liman sax sax al yama kama sax sax cheytaana wal jahla wal qamma xëy rek ko mën a def te xewul mu mën a def fexe fexe bu jublu sëñ bi kon nag ndokke noonu daal ndokke noonu ndokke noonu maa ngi leen di ñaanal nag sëñ Tuubaa xaasal leen ci xéewalam yi nga xam ne du jeex du xaaj ngeen am xéewal yi ngeen ko liggéeyale te bu ngeen ko liggéeyalee ba noppit ma nangul leen ko te may leen jàmmi adduna ak jàmmi àllaaxira ci barke sëñ Tuubaa wasalaamu aleykum wa